mis à part police à part Marocain mais dafa neex dafa riche musicalement ci lyrics dafa riche man symphonie mooy sama morceau au début dama doon déglu yóbbante bi dafa may dal yëpp mais actuellement man symphonie moom donc ça veut dire que album bi day def di tourner am na cinq musiciens yu bëri yoo xamante ni par exemple xaalis gën a dugg daf lay dal lan naa yow ngay ñëw gis ne ku nekk sa bopp ana benn sa dafa gën Seydou gis nga ku nekk ak sa di ci tere donc yéen ñi ñëw fii Grand Théâtre bu soobee yàlla wala may naan baal bëgg ñëw alors Waly maa ngi lay nuyu Big Taf la bu site internet sans limite. Big Taf Assane maa ngi lay ziar. alors juste dañu remarqué euh, bi nga signé sa maison de discipline bi neuf bi mu nekk sa grand événement bu nga xam ne def nga ko fii ci Sénégal maintenant juste après est-ce que mën nañu xaar wàllu delluwaat ci salle yi nga xam ne entre guillemets certaines gens disent que dafa échec lu ci mel ni Bercy wala après signature maison de disque boobu est-ce que mën nga xaaraat foofu nga retourné waat. waaw euh, salle dañ ko def pour ñun parce que dinaa dellu waaw kañ laa fa dem xamuma ko est-ce demal Bercy waaw kañ laa fa dem xamuma ko li ñi ci di wax ak ñi ñenn ñi di weddi loolu fii lañ ko fekk kenn mënu ko dindi les images sont là mënul image boobu mënul ma jëloon ci travail ko ni ma ko def xaw ma ban Sall moo ma sonal mais du ko togg parce que dafa tëj parce defaral place te man beneen dinaa ko dem defaral lu baax. maa ngi lay nuyu mooy ne dégg nañu ne anniversaire bi première partie bi Fatou Seck di yoo koy tëgg est-ce que dinañ xaar Assane Diagne parce que si famille la bu ñu waxee Pape Assane Ndiaye boo waxee famille Secken génne ci Assane Ndiaye waxatoo famille Secken leneen nga wax ñoom ñoo bokk seen Louga jóg bokk seen Samba Faye ko est-ce que dina ne la famille Secken nga famille parce que gis ko wax. bari lu leen gis yéen ñaar. déet la sama papa la. maag moom du ñu fréquenté parce que Mbaye du morom du nawle ah, ah du sama morom sax mais ñu ngi am de bon bon terme vraiment et yow sax fëgg nga sama bopp su jógee këram laa jëm. balaa ñu jàpp di ci si sax bu soobee yàlla na gën a ñëw. asalaamaaleykum waa Ndamaar di la nuyu Waly Ballago Seck c'est Asta diaspora deux cent vingt et un ñu gis ni sa anniversaire ren bi dafa tombé bi nga xam ne mooy sa date bi nga judd exact muy samedi nga xam ne nag euh, euh, ñu gis ni nga ni waa famille Faramaré ñooy joué li nga xam mooy premier part ñu bëgg a xam. ndax live bi ku ci nekk di play back sa benn morceau. waaw live nag moom du fi a xaj parce que daanu mooy tax te bëgguma tamit public bi sonn yéen yéen sonn parce que ils leen sonal trop trop donc ku ne xam na ni Faramareen seen morceau yi yëpp a dox. morceau yi ñëw di ko tëgg live dañuy ñu duggee jouer live ma jouer live kon kenn bu ñëwee côté côté ah donc dañuy ñëw ku nekk am nga sa titre phare nga ñëw playback ko ah wax sa message public bi sa afonteeg yow la les mën nga ñëw live ko parce que nag eh, eh may borom bés bi sëy dégg loolu waaw mu ñëw foofu baax ko ko bañ la nga génn Sénégal ndax ñoo lañu am ñoo yàgg parce que yow. ñaari mooy ñu gis xale yi. di daw di tëb. di daw di tëb loolu ci mooy def ko lan lañ ko dund. loolu la la waaw mais maa ngi lay gërëm di la sant euh, li ma ñëw wax rek laay waxaat xam naa ne moom ci gars yi bëri na. waaw si gars yi bëri man moom nekk quatre-vingt-dix la quatre si gars yi bëri na de am na man nag li wax lay euh, euh, répété waat tout le temps rek gannaaw yàlla ah? ah? ñun Sénégal rek lañu doomu aadama def ko ni def def ko sàll madame Bintou waaye superstar réew moo koy def ci doom naka la ko réew di defee à la presse à travers koy qualifié à travers koy bindal à travers koy nëbbalee ay défaut parce que euh, du lépp lañu ñu war a weer man damay jub damay faxasal doomu aadama rek la mën naa am ay défaut comme mën naa am ay qualité mais marchandise boo koy jaay du défaut bi ngay wane qualité bi ngay wane donc superstar bu ma ko fas nekk sama réew ñoo ma koy def à travers la presse à travers mi ñuy jëndee samay tube ak samay jàpp you know euh, donc yow boo nee Michael Jackson Sénégal Amin muy Diarra bi yàlla na bokk ci ñi représenté Sénégal partout dans le monde incha allah yàlla mën na ko yàlla na ko yàlla def jërëjëf. Abdou Fall Moneyma Info sànq dañoo am euh, accrochage ak yenn si wax si sa anniversaire ça fait groupe bi dañu bëgg dañu ma gën a bëgg dañu ma jox li ñuy def nag mën nañ ko loolu dees suñu ko waxal ndax ñun raam daan ku ci nekk da ngay daaneel sa léeg-léeg ma woy dëggkat bi daal léeg-léeg kenn joué man sama bopp ma daal donc ñun li ñuy def ku ci nekk da ci ciy gis sa bopp sa morom alors li gën a gaaw gën a ko def mooy bëgg li ñuy def ñoom dañ ko bëgg loolu laa la mën a wax yàlla na jàmm yàgg ci groupe bi merci beaucoup xamante ni dinañu mën a gën a liggéey ak yow jaare nag yàlla mooy suñu at man laa laa bëggoon wax ba pare booba nga ne da nga def seen bés bu avance bi merci beaucoup bon pour morceau yi dafa dama daje sama benn sëñ na ma ñëw woy njàngale te ñu fi dinañ ko ma ne ko waatal naa la dinaa woy njàngale donc dama ko way rek parce que promesse la bu te ma am ay soppe daa koy waale xam nga ay chrétien tout ça xalaatu moo ne dina dina leen sax neexee nii parce que dafa xaw a gàtt beneen ñëw ne dinaa ko gën a yaatal boobu accessibilité bi ngeen bëgg ak waal euh, euh, mën na nekk ci kaw muy demee nii parce que li fi nekk ci maison de presse su fekkee dama ko wër wër chaque weer wala chaque deux mois su yàggee dinañu ne presse sénégalaise sax dañoo far ci loolu parce que y a beaucoup de de presse surtout presse en ligne donc li gën a simple defe mooy lii ñu wootee bés ñu waxtaanee ko defar ko. mënul ñàkk nag nga daje ci kenn ci yenn événement mu approché la man presque musuma approché face à face bi nga ne ma waaj ma dana doon teel si dama je parce que ñàkk ko teggin te yewee di ko ah ah et ragaluma wax ci presse parce que lépp lu may wax dama koy wax naturellement est-ce que maa ngi ciy gis avancement bien sûr parce que biñ dalay def nii ba je pense que réeroo amagul yàlla ko donc avancement yàlla yokk yàlla yokk sànni xeer nag pote mënul ñàkk parce que ñun sax daf ñuy yokk jox mais na étui titre na gën a oyof c'est que titre yi boo déggee titre yi da ngay euh, dama gis ñu titré Wally Seck dit Thione Seck est dangereux ku ko dégg da nga naan wax wax ak jam ci baat ay euh, wàññeeku tuuti ah, ay jaan-jaan ko ci sa xel dafay sonn alors maa ngi naan Thione Seck dafa mën a way dangereusement donc tiitiri moom nañu koy xalaat ak tuuti te ñu xam bàyyi bu ñu leen di windal dara ñun doom yi ñu seen que seen doom ay mag lañ te am nañu âge xeex te waratuñoo foofu Donc nous devons soirée, c'est très, très, très, très important. Merci beaucoup. Assalamu alaikum Wali, c'est Maggie, journaliste.